entreprise yi jóge biti réew ta ñu tàmbali di ko jox euh, ñenn ci ay euh, locaux ñu fexe rek ba gën a euh, tasaare lu ni mel CNP moom mooy am boobu lépp plaidoyer bokk na itam ci lañu ñu namm ci yooyu le ndaje mooy ab salon international boo xam ne dina dajale ñëpp ñu yëngu ci wàllu économie numérique naka noonu beneen lël boo xam ne ñu ngi ko duppee Dakar Industrie 2024 waaye itam dina am ab ndaje moo xam ne euh, dafay euh, ñeel wàllu entreprise impôt naka noonu liggéeyu douane loolu yëpp di ay programme yoo xam ne euh, dañ kon nam amal ci diiru boobu lépp assise forum état partenaire sociaux ak ab symposium boo xam ne ñu ngi ko jagleel wàllu njàng mi njàngale mi ci daara yu kawe yi ci formation bi ak ab ndaje moo xam ne Euh, dina dajale euh, patronat boo xam ne mu ngi bàyyi ko ca Afrique euh, de l'Ouest loolee moom mooy mbir yoo xam ne fas nañ ko yéene waxtaane ci diiru boobu lépp assise njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daan na waxtaan ak jëriñam lu li mel ñu ko amal gu nekk bés bu ne jàppale ne nag àdduna jëmale ci njëg dund gi nga xam ne wàññi nañ ko waaye itam taxaw tem ci la nit bëggoon def banque seen yoxoo bañ ko topp yenn ci ay commerçant yi xam itam ànd ñu woon ci ndogal bi bokk na nag ci la mu jël ci ay ndogal mooy fexe ba ñu am matuwaay yoo xam ne mooy tax ba lañuy ñuy jël ci ay ndogal ngir ñu daal di fay yemale euh, njëgu dund gi ñu fexe rek ba askan wi yëpp daal di ci euh, tënku ñu ànd ceeg Pape Bandagay. président Bassirou Diomaye Faye lam bëgg moo di ñu amal farlu gu mat sëkk ci jëmal wàññi gi ñu amal ci njëgu yenn produit yi fii ci Sénégal. ci ndajeem conseil des ministres mi lee njiitu réew mi daal na sàkk ci gouvernement am ngir ñu wëyal waxtaan yi ñuy amal la ak bépp acteur bokk na ci meññe yi waaye itam ñu yor boutique fii ci réew mi. ca booram premier ministre daal na ñëwaat ci coow li amoon diggante meññe yi ak nguurug Sénégal ci lu ñeewal wàññik njëgu farine bi moom Ousmane Sonko daal dina fësal mbébétam mu di wëyal enquête yi nga xam ni am na jëm ci nemmeeku ay njuut njaaj yu ay entreprise amal fii ci réew mi ñetti jiitu di ñuy defal farine. ci ndaje mile daan nañu ci waxtaan yi itam mbirum souveraineté nationale maanaam moom sa bopp ci bépp fànn la cay priorité yu njiitu réew mi moo di fexe ba gën a ñoŋal entreprise yi nga xam ni nguur gi moo ko moom loolee tax mu sàkku ci premier ministre mu gën a baral lépp lu ñoŋal consommé local waaye itam njënd ak njaay bokk na ci itam fexe ba teg loxo ci njëgu dund gi am ci ndëgër laay gu mat sëkk moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daal dina itam santaane ngir nguur gi fay bor yim amee fii ci biir réew mi waaye itam fexe ba maîtriser lépp gi nga xam ni Sénégal mu ngi koy amal ci bitim réew. addu jëmale ci njëgu dund gi nga xam ne daanaka woyofal nañ ko bu baax baax loolee sax daanaka dikkee taw Sénégal juróom fukki milliards ak ñett jàppale ne daal Lamine Ba rafetlu na bu baax ndogal yi tukkee ci kilifa yi. la mu bëgg nag moo yooyu la ndogal ñu toppaat ci di ko saytu ba fexe ba askan wépp daal di ci euh, tënku ñu teewlu ay kàddoom appréciation bi ñu def rek mooy di ko rafetlu rafetlu rek parce que wàññi moom lu mu ci mun doon même si dañ ñaar dërëm moo wàññi la dañ koy dañ koy dañ et vraiment di ko saluer ñëpp sénégalais yëpp d'accord nañ ci benn biir comme ni ma ko waxee léegi que volonté bi yéene bi mu ngi fi bëgg nañu def bëgg nañu wàññ mais li li erreur bi mooy nañu moytu yàkkamti nañu moytu précipitation nañu moytu agir parce que ñun ñoo ko yéen a ko waxoon gars yi wax leen ci rajo yi ci télé yéen a a ko mais gis nga li mu mën a jur déjà fi ñuy waxee ni démb ak tey suukar commencé na manqué Dakar donc dinañ am problème suivi ak problème applicabilité li am solo solution yi ñaar la benn bi mooy fexe ba commerce bi ñu dexaat ko ci loxo sénégalais yi récupéré waat boutique yi jox sénégalais yi géré ko jël créé waat des son ay ay magasin témoins sénégalais yi mën fa dem di jëndi mu régler suñu problème suivi applicabilité beneen bi soxali ñu mbay mi la mettre les milliards qu'il faut matériel agricole bi doy accompagner baykat yi ñu aménager suuf si ci ñaari at jàpp naa ne ci ñaari at du gën ngaa yéex gën ngaa yéex si ñetti at dootuñu jéggaani ceeb dootuñu jéggaani meew dootuñu jéggaani dara lépp dina des fii dootuñu wax maintenant baisse de prix vraiment loolu daal moo ci solution bi et foofu la war a dem li ngi desek Lamine Ba ci benn xabaar bu sukkandikoo ci ay kàddoom déclaration de politique générale bu Elimane euh, Diorine gi nee na daal loolee dañ ko war a neenal moom Lamine gay jàppale ne dafa Lamine Ba dafa jàpp dafa bokk si lii nga xam ne moom mooy société civile bi la mu gëm mooy euh, lii ñuy coow muy déclaration de politique générale boobee amul solo ndax am na yeneen i ponk yu gën a euh, jàmp yu ñu war a euh, lijjanti la mu bëgg sax mooy lii di assemblée bi ñu daal di koy tas. jàpp nañ ni toog mobiliser république bi yëpp ministre yeeg député yeeg presse askan wi pendant vingt quatre heures. ci benn discours amul sens li am sens mooy li ñu nar a li ñuy def nañ ko def ci terrain bi et dañ ko war a dindi parce que premier ministre yi fi jaaroon yëpp nattal ni ñu def li ñu waxoon ci seen déclaration de politique générale nga natt li am ci terrain bi souvent dafay waro ñun gëm nañu urgence bi du foofu urgence bi foofu amul sens et c'est inutile bu fekkee dafa laaj décret ñu jël décret le président la jël décret ça dafa laaj arrêté premier juróom-ñaari nit yoo dajal ci fukki nit soo leen laajee dañu ne xaaruma ci dara amul sens parce que day perte de temps la c'est inutile mobiliser république bi yëpp ñu toog assemblée pendant vingt quatre heures député opposition yi di yéeg di wàcc ay procédure ay defal nii di poser ay questions yaa waxoon li ñu jox assemblée xam nga luy xew assemblée urgence bi loolu urgence bi sax lan la dañu fexe ñu tas assemblée bi delluwaat ci élection boo xam ne c'est digne élection assemblée nationale boo xam ne dafa méngoog régime bu bees bi parce que nañu jàpp ne sénégalais yi 54 pour cent li ñu wax mooy ñii lañ jox réew mi te li nekk assemblée nekkutul 54 pour cent. des ci déclaration de politique générale bu limaan joxoon bi Ousmane Sonko groupe parlementaire bi askan wi daan ne tontu ku jega bu ñu sukkandikoo ci dafe mi nga xam ne moo jiteeku kuréel la mu wax daal moo di ci li tonk nag pencum ndawi réew ma amul lenn luy firndeel ne daal waroon ñëw mën a tëggu ci ab ap ñooy teewal askan wi ca foofe ca pencum ndaw réew mi te fare ca nguur gi jamono ji nee nañu euh, li ñu gis méngoowul ak li nga xam ne moom la charte assemblée nationale daal di tëral ba tax na loole ñu bëgg mënagula a euh, antu ñu ngi ci doon euh, addu ni ki démb ci seen ndaje ak way taskatu xibaar yi ci teewaayu Jibril Diallo. ay révélation la yoo xam ne ku moywul dina relancer débat jëm ci wàllug respect délai déclaration politique générale bu ilimaan jiwrim ya ndax nag bu ñu sukkandikoo ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi règlement intérieur bu assemblée nationale dañ ko falsifié règlement intérieur bi dafa faux et pourquoi ñu jàpp ne règlement intérieur bu faux la dañ ko falsifié maanaam dañ si dëxëñ loo xam ne jaarul fa mu war a jaar pour dugg si li nga xam ne mooy règlement intérieur bi te ñun député ñun dañuy proposer ay loi ñun député dañuy voter loi ñun député dañuy saytu sax loi yooyu ndax ñu ngi ko teg ci yoon ak gouvernement bi ni muy doxalee kon jaadu na bu ñu indilee loo xam ne teguwul ci yoon ñun ñoo war a njëkk taxaw ni lii mënuñu cee liggéey parce que nous devons être un exemple député yu mouvance présidentielle jàpp ne amul ben disposition ci règlement intérieur bu assemblée nationale boo xam ne dafay préciser anam ñi nga xam ne ci la ilimaan jiwrin di def déclaration politique générale. disent que oui euh, ça a toujours été fait comme ça. oui le premier ñu naan waaw nii lañ ko yàgg defee premier ministre Amadou Ba nii la ko defee waaw ndax dañoo war a wëy di salfaañe li nga xam ni mooy yoon di salfaañe règlement intérieur bu assemblée nationale déedéet. est-ce qu'on doit continuer dans la violation du règlement intérieur et de la constitution non. njiituk groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi di fàttali ne ci octobre 2019 la ñu mujjee ci soppi règlement intérieur bu assemblée nationale gannaaw bi ñu supprimé poste premier ministre député yu Yewwi Askan Wi nag woo nañu assemblée nationale euh, ñu rétablir maanaam ñu delloo article yooyu nga xam ne dañ ko dindi woon ci règlement intérieur pencum ndaw réew ma kuréel gi ñu tegoon ngir saytu lépp lu jëm ci titre sur domaine public maritime jàppale ne député yu Yewwi Askan Wi daal dinañuy euh, daanaka ŋàññi doxalinu penc mi réew mi nga xam ne bëgguñu woon benn yoon toogaay euh, ci rek commission comité ad hoc bi jàpp na daal loolee du dëgg du yoon na. député yi fare ci nguur gi nag nee nañu lay boobee ñu joxe ngir daal di gàntal lu ni mel euh, yéenuwul maanaam bu ñu sukkandikoo nag ci seen ndaje ak way taskatu xibaar yi démb li ñu xamle mooy bile taxawaay jubluñ ci lenn dul dul daal di di euh, salfaañe liggéey boo xam ne euh, kii di Sonko namm na koo amal ngir lii ñu duppee jub jubal jubanti ñu teewlu seen i kàddu ñu génn da ngeen gis ne dafa am benn euh, comité comité ad hoc boo xam ne dañ ko taxawal te invité si député yi assemblée nationale pour ñu ñëw saytu maanaam mbirum littoral bi lépp loo xam ne am na fa mu nekk loo xam ne teguwul ci yoon si ni ñu joxee suuf yi nga xam ne dafa nekk si li ñuy wax DPM muy domaine public maritime waaye bi ñu demee si réunion de bureau dafa nekk loo xam ne président assemblée nationale ak le bureau parce que ñoom ñoo fay majoritaire dañu refuser participation parlementaire ci biir comité ad boobu ñu jàpp ne loolu du yoon te rafetul. parce que bu fekkee ne ñun la ñu tànn nañu dem leen assemblée nationale teewal ñu fa voté leen ñu ay loi proposé leen ñu ay loi waaye saytu leen ndax gouvernement bi mi ngi def liggéey bi nu mu waree ak xaalis bi ñu ko dénk ndax mi ngi koy def fi mu ko war a def jaadu na lu toll nii suñu suuf di suñu moomeel ni ñu koy defee si suñu alal di ko def si loi yi fépp fu ñu koy waxee yaakaar naa ne député moo fa war a jiitu addu jëmale ci diwaanu Ziguinchor jàppale na ñiital bokk moomeel waa ni ki tey tabb nañ ko du turu Jibril Sonko jàpp leen rek ni euh, ñoom ñu ngi euh, mujjee euh, ñu ngi nekkoon ñeent ci ñoo xam ne ñoom ñoo sampoon daanaka seen ndënd bokk na ci Alassane Diédhiou nekkoon nekk cadre ci parti PASTEF nekk itam ñeenteeli adjoint wu maire Bassirou Koli nekk sixième adjoint au maire Djibril Sonko nekk deuxième adjoint au maire ak ayda Bodjan nekk ki ñu toftal ci Ousmane Sonko waaye ca mujjantal ga ñaareeli adjoint au maire bi di euh, euh, Sonko Djibril euh, daanaka moom moo mujj raw gàdd jël raw gàddu gi moo ne day moom Djibril Sonko moomee sax am na plainte boo xam ne dañu ko dugaloon ngir daal di naxal li ñu duppee inéligibilité maanaam dañu jàpp ne waruloon bokk si ñuy samp seen dënd ak dugaloon boobu lépp. plainte di Mamadou Lamine Dia bokk ci euh, parti Union des centristes du euh, Sénégal te bokk ci euh, mairie bu Ziguinchor. addu jëmale ci marchand ambulant yi féetewoo ci Petersen seen ñoom nag weer ba futu la ñu nekkee ginnaaw bu leen jëlee foofee boobaak léegi nii nag am nañu ay jafe-jafe yu mag a mag ñu ci bëri sax daanaka dañoo ñàkk seen liggéey. nee ñu nag lu bari ci seeni i bagage dañu ko dal di yàq ba tax nag ñu naxarlu ko waaye itam sàkku ngir ñu wutal leen feneen ñu nekk ñu ànd ceeg Matar Ba amatul benn tablier boo xam ne gis nañ ko ci marché bi nekk ci gaaru BRT bi foofee ca na li ko waral nag mooy déguerpissement bi nga xam ne amal nañ ko ci bërëb ba opération yi mu ngi am gannaaw tabaski yi ci jamono bi nga xam ne marchand ambulant yi ñoom ñëpp dem nañ seeni i kër ngir amal fête bi. tabaski deux jours lañ ci teg ñu ñëw ramas marché bi yëpp deux jours après tabaski ñëw raxas marché ba mu set wécc yi nga fii soo fi ñëwoon ci événement bi da ngay mais actuellement gisoo fi dara ñenn ñu bëri seen bagage fii lañ fii lañ ko bàyyi chaque jour police dañ fi te ñun ay citoyen comme ñëpp comprendre nga te dañoo bëgg a liggéey liggéey dong moo ñu tax a jóg. moonte ñoom sax nangu nañ ni jotoon nañ avertissement ay fan ci ginnaaw jaarale ko ci ab communiqué gouverneur bu Dakar waxoon na leen ñu jóge ci bërëb ba. ba ñëwee ba dañoo dem tabaski avant ñuy dem tabaski wax nañ ñu ne fii day set waaw décret bi jóg na te xam nañ ñun dañ ñoo wax ne ñun xam nañ ñun dañu gouverneur moo ko moo ko def mais Alioune Ndoye lañ gis ñun waaye mais Alioune deful dara. bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag am na seeni i yu bëri yoo xam ne dañ koy yàqatee am ci beneen pàcc boo xam ne ñoom ñoo koy yóbbu dañoo jël suñuy bagage dugal ko si tabax bee ñu daaneel ne kullu bagage bu fa nekkoon te borom fekkee woo ñàkk nga bagage yooyu noonu du benn si man ak samay morom ak keneen ak keneen mënu ma ko lim bari nañ am na bagage yoo xam ne sax gars yi dañ ko yóbbu seen borom a ngi si topp di daw marchand ambulant yi di xam ne nii li ñu perte si mbir mi bëri na naam sax mënuñu koo xayma booy xayma ñu perte fii ci xaalis ëpp na ay dix millions quinze millions di dem parce que lu fi nekk ci ay ambulants di daan seen doole parce que mënoo ko xayma ñun ñëpp ay borom kër lañ xoolal boo xoolee voie bi yëpp ñii nii ay borom kër lañ ñu ngi nii toog dañuy xëy suba ba jant soo dañuy toog fii. boobu ba léegi nag ay téeméeri marchand ambulant ñoom ñoo nekk ci chomage li ñu bëgg nag moo ñu recaser leen ci beneenub site ngir ñu mën a amal seeni activité xeex wala wàllum drogue tax na ba ñi nga xam ne rek ñoo féetewoo eh, ci rek gendarmerie bu yéen ñoom nag daanaka amoon nañ liggéey bu am solo guddeeg ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci au juin daal di dëjëdi nag ab réseau bu mag woo xam ne dañu doon jëfandikoo drogue. ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benni kilo ci yamba moom la ñu daal di euh, teg loxo ñu dajale woon ko ci lu toll ci fukk ak ñetti saaku benn bu ne def fanweer ak juróomi kilo ñu yeboon ko ci ab gaal doon ko yóbbu ñeenti nit yi nag teg nañ leen loxo ñu ànd ci Grégoire Sambango gendarmerie nationale mel ni rek mu ngi woyal liggéeyam ngir xeex trafic international de drogue ñoom takk der yile le daal di rek tegati quantité bu am solo ci wàllug Sinébar loole légion bu Dakar a ko amal. ci guddik 23 euh, au 24 euh, juin 2024 euh, ci liggéey bi brigade territoriale bu yenn teg na loxo quantité bu am solo. ci euh, ciné ba. ba ñu wàccee rek ci terrain bi rawatina ko def daal di def seen i pexe. seen i renseignement yóbbu leen ci saisi bile. Euh, tax na leen jàpp ci bu njëkk benn sac boo xam ne nii euh, yeboon na ñaar fukk kilogramme ak benn ci ci chanvre indien ñu koy wax yamba. benn wàll ci sinébar boobu noonu ñu gis am na ci lu nekk ci beneen gaal boo xam ne nii mu ngi ci même plage bi di tëmb. ginnaaw ba ñu leen déglo gendarme yi rek ba wëlbati leen ci li desoon ci boobule cargaison seeni investigation di wéy unité bi daal di rek wàcce moyen naval ya résultat ba daal di wéy. Euh, tamit jàpp nañ ci ñoom ñett ñi nga xam ne nii am nañ njort bu baax ne que euh, bokk nañ ci trafic international euh, bu Sinébar bi ñu jàppee googu yàmba. nañ loxo tamit benn gaal ak moteur bu 15 chevaux. Euh, raax ci doll yi un million cinq cent mille francs ci xaalis boo xam ne nii ci wéy jaay sinébar yi lañ ko nangoo. ci xeex bi ñu nekk rek di xeex waaye tamit gën a yokku kaaraange gi gendarmerie nationale des rek di woo askan wi ngir ñu daal di ànd liggéey ak ñoom ma loole ci ko gis sinébar nga daal di boole. jërëjëf Grégoire Samba Ngom addu jëmale ci xibaaru bi téré wi ca Kenya jàppale ne njiitu réew ma di William Ruto daanee deltu ginnaaw ci projet bi nga xam ne da ko rek bëggoon duggal bu atum 2024 atum 2025 wàllum koom loolee nag ko taxoon jóg moo di yokku taxi waaye nag boobee xabaar dafa rek jur ay jàmmaarloo yu métti métti ca Mauritanie kuréel gi nga xam ne moom la ñu dénk saytu élection yi ma ngay jéem a dalal xelu askan wi ci jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci élection yi di yokk nag euh, jokkoom ak askan wi fële nga xam ne moom mooy ca Mali euh, itam nguur ga dafa dal di dakkal bépp yëngu-yëngu boo xam ne dafa ñeel wutum or ba euh, lu ko dalee fanweeri fan ci weeru septembre bi ñu dëgmal. William Ruto doon jiitu réewu Kenya moom nag daal dina xamle ci alxames gi ni retrait projet de budget 2024 2025 bi nga xamante ni dañ doon prévoir ay hausse ci taxes yi moom nag gannaaw bu ay werante yu metti daal di amee ci réew mi ba dugaloon ci réew mi sax ci ay manifestation yu metti lu tollook ñaar fukki doomi aadama ak ñett jotoon see ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci organisation bi nga xamante ni moom mooy xeex ak ak yelleefu doomi aadama yi ay fan des ñu daal di amal élection njiiti réew yi fale ca Mauritanie commission électorale bi nag moom ñu koy xaarandi bu baax a baax gannaaw bu mu amee ay contestation yu métti si élection législative yu ñu jotoon a jógee bile commission nag mu ngi jéem a dalal xel yi bu baax a baax di wéy di jël kàddu gi di indi ay leeral ci ni nga xamante ne ni noonu lañu nekk di liggéeyee ngir rek ñu daal di amal élection yi ci anam bu jaar yoon foofee ca Mauritanie. te noonu sax la daal di profité ci occasion bi présenté li nga xamante ne ni moom mooy système informatique am mu yokk si di xamle ni. ay at a ngi nii lépp loo xamante ni ni dafa jëm ci wàllum résultat rek dañ koy publier ci seen site bi. ca Mali lépp lu jëm ci activité li nga xamante ne ni wutum or la foofu nag dañ ko daal di dakkal bu baax a baax ba lu jëm ba fii ak 30 septembre bokk na ci li ko waral di nawet ji nga xamante ne ni fa lañ daal di jublu ndax bëri na lu muy jur ay jàngoro ak ay accident yi nga xamante ne ni dañuy faral di ko nemmeeku saa su nawet gi jubsee mu bëri lool ay doomi aadama yu siy faral di ñàkk seen bakkan loolee tax ba nguur gi daal di jël ndogal dakkal lépp luy liggéey jëm si wàllum oor foofu ca Mali ngir rek mën a aar doomi aadama yi nga xamante ne ni ñoom ñoo fay daan seeni doole. jërëjëf Moussa Mané àddu ci ponk bu mujj gi dañu leen kay dala ak jaam yéen kaay bari di kat den sexr bu njëkk li nga xam ne kat mooy déclaration politique générale bi nga xam ne ba léegi Ousmane Sonko defagu ko Sud Quotidien daal di euh, sëgg ci loolee ne daal groupe parlementaire bi Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu débat bi nga xam ne moo ñeel déclaration politique générale Ousmane Sonko léeg-léeg kat gis na ne dara amul obligation boo xam ne kat Ousmane Sonko mën na ko def bu ñu sukkandikoo ci ayib dafa ak ñooñoom waaye Yewwi Askan Wi ne daal audition premier ministre bi ci quatorzième nekk bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien ne ñoom ña ngay dañ ko daal di sax déchargé ci nga xam mooy déclaration politique générale bii bu ñu sukkandikoo ci député nga xam ne ñoo bokk ci groupe parlementaire bi ne amut lenn loo xam ne kat daal def na ko akub tënk loo xam ne day tax rek mu daal di koy def ñoom nee na kat dañ ko daal di déchargé ba tax na kat audition bi nga xam ne moo ñeel ci njiitu la gouvernement bi loolee amul ci benn règlement intérieur ci assemblée nationale ba tey le quotidien le quotidien nee na yeewi askan ñoom dañoo censuré face à sa déclaration politique générale ñoom dafa mel ni bi naam ci constitution bi da abul fooran foo xam ne dafa bokk ci règlement intérieur bu ñu sukkandikoo ci ayib dafe mi nga xam ne kat député ca assemblée nationale ayib dafe ne daal falsification document la daal ci yokku de amut lenn lu nga xam ne daal ñeel na ab révision vox populi daal di seq waxtaan ak Zahra Iyane Thiam bokkoon fi nekkoon fi jawriñ ci nguuru Macky Sall moom nee na amul benn obligation bu nga xam ne day rek ci délai ñetti weer yoo xam ne mën nañoo def déclaration politique générale ne daal bu doon Sonko moom day jouer en différé maanaam yii ñu koy waajal nag du ko daal di def ndax adresse bi nga xam ne koy xaar ci nga xam ne assemblée nationale loolee daal di dàq ba tey ah, ci ah, tribune ne daal Sonko moom lu tiit ndax dafa mel ni kat bugg koo def wala dafa am lu ragal laas tontu ko ne dëgg la ndax moom xam ne kat dafa daal néew doole maanaam minoritaire ci assemblée nationale te loolu sax mënta justifier lu ma nga na gaat Ousmane Sonko ne daal déclaration politique générale itam daal dëgg neexul ndax gis nañ ni Ousmane Sonko mii bëgg na bëtu ci ay manquement assemblée nationale loolee amu ca ba tey ci les écoles yi desani Ousmane Sonko ak Diomaye ñoom dañoo fas yéene rek tongali entreprise nga xam ne ñoo liggéey ci wàllu monitor waaye itam fexe ko daal di dajale le soleil ne ko dëgg la koppar yooyu la bëgg daal fexe tibbee ko fi nga xam ne moo ci ay politique industrielle ak li nga xam tamit moo ko ñeel yéen kaay bi nee na daal ci conseil des ministres jot nañ ko fa fàttali waaye li nga xam ne mooy doxalin ci wàllu la enquête ba tey sëgg ci euh, njëgub nga xam ne moo tukkee ci pétrole yi ak la ca ruusee waaye gis ne lu toll rek 1800 milliards la ci état def waaye gis ne subvention yi daal taxul lépp dara yomb Ahmed Cissé nee naam sax am na subvention waaye tamit Sénégal daanaka ci wàllum carburant moo gën a cher sax nga xam ñoo jege ñaa lépp ne daal yéen ngi nelaw waaye bu yowar yeew ndax ci DER/FJ am na ay marché yoo xam ne dañ ko classé secret défense lu ci mel ni kat wàllum équipement ay étude de marché ak génie civil daanaka sax kenn mënu ko contrôler daal piment jot na daal di jagleel lu tolloog juróom fukki match ak ñeent classico secret défense ci euh, njëg lu nga xam ne daal mi ngi toll ci lépp ñetti milliards coon tàggat ak Stades Quotidien dikkaat na ci euro bi ci euh, Allemagne France Espagne Portugal ne daal tableau bi mooy groupe de la mort ci ñeenti favori yaa jëf lii jaajëfal itam Momar Cissé mbokk yi jaare fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfal leen bu baax ci teewlu bi ànd bekk 7TV amoon mbégte janoo ci ak Kajoor Cissé ak ngërëm ñeel na la Suzanne ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax mbokk yi ñu doon teewlu dinañu gisante ci kanam tuuti bu juróom wax jotee ci kàllaama nasaraan ak wolof ci tënk lay doon jaa jëf alxames bi seen émission c'est à débattre dina ñëw si fermeté nguur gi jëm ci ay dogalam transport bi dund gi ak lempo yi mel ni l'État doit rester fort bi ñuy wax ci la nguur gi nekk ak képp ku mu jàpp ne wàccoo nga ak yoon ñu ciy dalal Ousmane